bima billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim barke borom tubaa asalaamualeykum wa taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi yi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan seen télévision Lamfal TV rawatina ñi nga xam ne ñooy topp seen euh, émission bii di xawlal madahibil arba muy émission bi nga xam ne fàttalante ak jàngalante ak laabirante lu jëm ci wàllu euh, mazhab yi nga xam ne am nañ ci lislaam rawatina nag ñeent yi ñeent yi nga xam ne ñoo ci gën a siiw ñu di ko ànd ak sun mbokk docteur Abdou Lahad saane di jàngalekat bu mag nekk fii ci Touba ci daara Cheikh Mouhamadul Mountakha ji nga xamante ne bii El Hadj Mun Ndiaye ma Ndiaye jong moo ko liggéeyal Serigne Touba teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxol Cheikh Abdou Lahad Sané. mbokk yi ñëwaat ak yéen rek ci sun beneen numéro ci eh, imam ju mag joo di di imam Malik yaakaar naa ne Malik doonut koo xam ne da ciy jaar jàll donte da leen tënk ñetti jataay ci moom delluwaat ci yeneen eh, imam yi dellusiwaat ci moom <coughs> waaye dañu bëgg fi ñu ciy topp rek bu ñu leen di bàyyi ngeen am fu ngeen mën a teg seen tànk eh, xool fa seen i bët teg fa seen loxo ba ba ñuy delsiwaat sëñ Abdou Lahad ginnaaw bu ñu la nuyoo ba noppi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci leeral gi ñu andiloon Malick fi mu doon jàngalee daaraam yi loolu gëmee nañ ci ne lu ëpp ci sëriñ si ko jàngal madinatul munawara lañ ko fekk lenn ñi fekk na leen màkk ci masaa di euh, dem di aji euh, wala yu demee noonu waaye ñenn ñi nga xamante ne bii mënuñoo ñàkk ak réew muñ mën a ne donte ñi ko jàngal nag duñ waa madina kese ay xeeti réew yu bari waaye ñooñu daan nañ déplacé seeni réew ñëw madinatul munawara fekk fa malik mu jël ci ñoom la mu soxla kon day mel jàng na ci loxoy ñu bari ñoo xamante ni bii eh, jàng nañ ci eh, saxaaba yi eh, mel nañu dégg ci xeetu njàngale mi lu ëpp daaraam ci madinatul mën a munawwara la daan jàngalee ci wetu yonent bi gis na ne na ko ku amoon pas-pas la ku gëmoon it nag nag madinatul mën a munawwara ak la fa nekk lépp la kon <coughs> ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bëgg a ñëwaat nag ci yow ma Malick ndax am na lenn lu mu fekk ci doomi saxaaba yi wala saxaaba yi wala doomi saxaaba yi ñu ngi ci fekk ñu gën a siiw ak it Malick am njàngaleem yan dongaam ñoo gën a siiw ci ñim ber eh, te te ñooñu sax am mujj am am ngir wala ñu nekk ay imaam ci ñi nga xamante ne bi xames na leen bëggoon nañu ñëw ci tuuti ndax dañu wax ne eh, meññetum garab gi dana tax nga xam cafkal garab gi bëggoon nañu xam itam meññetum Malik ñan ñoo ci bàyyi ko bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi am mbégte dajawaat ak yéen ci sunu jataay yii di jataay yi xawlal aymatil arbaa e, tey nag ñu war a taxaw ci ab tomb boo xam ni dafay aju ci imam waaye ci ay sëriñam ak ci ay ndongaam e, bu dee ci ay sëriñam comme ni ko suñ mbokk suñ fàllu galas si la euh, laaje léegi waxoon nañu ci e, jataay yi weesu euh, ne imaam Malik ña ko jàngal am na ci lu toll ci ñetti téeméer ak lu topp ñoo xam ni ay taabiina lañu buñ la nee taabiun mooy doomi saxaaba yi ak seeni donga ñooñu ñooy ak taabiun ñi nga xam ni ay saabaa jur ay saabaa leen jur wala ay saxaaba lañu ñu jamonoonteel ba ci ñoom la ñu jànge sëriñ Malick am na ci lu toll ci juróom lu toll ci ñetti téeméer yoo xam ni ci xeet yooya lañu taabiina yooya nag daf ci dañu amoon ñetti façon am na ñoo xam ni dañ leen boole woon min kibaari taabiin ci magi taabiina ya mooy ñi nga xam ni dañu jamononteeg saxaaba yu mag ya jamononteeg saxaaba yu bari ñooña ci magi taabiina ya la bokkoon ñooñu Malick li li li mu solo euh, li mu solo ci ñoom néew na lool waaye am ñoo xam ne min awsaati taabiin nga xam ni ci ñu diggu doomu ña lañu ca taabiun ya ñooña Malik solo na ci ñu baree baree bari ci doomi saxaaba yi ak seeni doom ak seeni ndonga solo na ci ñu bari ci ñoom euh, ku mel ni sëriñam bi ñu naan Rabiatu bnu Abdurahman moom ab taabii la woon Euh, daje na ak saxaaba yu bari jàng na ci ay saxaaba yu bari euh, ku mel ni Muhammad ibnu Shihab az-Zuhri ab taabi yu la woon jànge na ci saxaaba yu bari daje na ak ay saxaaba yu bari euh, ku mel ni Abdullah ibnu Dhakwaan ab taabi na ci ay saxaaba yu bari daje na ak saxaaba yu bari ku mel ni Abdurahman ibnu Hurmuzul Araj kooka it daje na ay saxaaba yu bari jànge na ci ay saxaaba yu bari ku mel ni Naafi Mawlaa Ibnu Omar Malik jànge na ci moom takkoog moom ab diir te bàyyi te te ab sangam moo nekkoon Ibnu Omar ku mel ni Salim Ibnu Abdullah Ibnu Omar moom Abdullah Ibnu Omar moo nekkoon baayam Malik jànge na ci moom eh, ab diir eh, ku mel ni Hisham Ibnu Urwa eh, donte sax maam ja moom mooy ab saxaabi mm-hmm. baay ba di Urwa Urwa ndeyam mooy Asmaa bintu Abi baayam mooy euh, Zubayr ibnul Awaam taawub Urwa moomu ñu ko daan wax Hicham maalik jànge na ci moom moom it daje na ay saxaaba yu bari donte euh, maam ja mooy saxaabi maamam ju góor ak maamam ju jigéen yépp waaye ànd ak loola euh, yépp rek ab taabii la ndax daje na ay saxaaba yu bari kon ci gàttal Malik ay sëriñam comme niñ ko waxee am na ci lu toll ci ñetti téeméer yoo xam ni seeni sëriñ wala seeni baay ay saxaaba yonent bi lañu woon kon Malik digganteem ak yonent bi soriwul ndax bi fi yonent bi jógee ak bi Malik du juddu juróom-ñett fukki at la ak ñett ndax moom mi ngi juddu ci atum juróom-ñeen fukk ak ñett ci gàddaay gi yonent bi des na fi ginnaaw gàddaay gi fukki at mu doog a génn àdduna kon eh, eh, génn àdduna yonent bi ak juddug Malik juróom-ñett fukki at ak ñett ñoo ci dox mm-hmm. kon soriwul mbir ya lool soriwul mbir ya lool a ah, boo koy boo koy boo ko doon ah, nattable di ko takk taqdiir moo gën a jege diggante bi bi sëñ Touba léegi dëgg la diggante bi bi fi yonent bi di jógee ak bi fi bi di juddu moo gën a jege diggante bi fi sëñ Touba ah, jóge mm-hmm. eh, mm-hmm. ak léegi ndax bi fi sëñ Touba jógeeg léegi eh, juróom-ñett fukki at la 1927 ak léegi juróom ñeen fukki at la ak ñett ak ñett waaw kon gàddaay gi ak juddu Malick dafay tolloog net bi fi sëñ Touba jóge mhm. ak tey ji ak tey ji rek waaw juróom ñeen fukk ak ñett mhm. waaye juddug euh, waaye juddug Malick ak euh, nelawug yonent bi mhm. juróom ñett fukki at la ak ñett. Mm-hmm. loolaa gën a jege. moo gën a jege. Mm-hmm. moo gën a néew diggante bi fi sëñ bi jógee mm-hmm. ak léegi. kon euh, soriwul mbir yi lool. ay sëriñam yu baree bari seeni sëriñ ay saxaaba lañ. ay sëriñam yu baree bari seeni baay ay saxaaba lañ. kon ci gàttal loolu lañ doon wax ci point boobu bu fekkee ni nag ay taalibeem la. junjoon nañu ci jataay yi weesu ne fu ne nit jógee na fa ci àdduna jàng si ci Maalik. Andalus sori woon na lool. boo xoolee fa Espagne ne xam ni daa jege Afrique lool ndax Espagne a ngi eh, jàkkaarloog Mauritanie. Mm-hmm. jàkkaarloog Maroc. Mm-hmm. Eh, nit jóge na foofa dem Ardul Hijaz dem Madinatul Munawwara gàddaa yi wala laxasi dem jàngi ci Malik. Mm-hmm. comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam béglee woon. ca xadisub yuusiku an yadriba annaasu akbaadal ibili yaltamisuuna al ilma fala yajiduna alama min aalimi al madina dina dinañu nit ñi dinañu mas a takk laxas. ngir sàkku ji xam-xam waaye du ñu mas a fekk fenn ku mel ni borom xam-xamu Madina ba te mooy Maalik mm-hmm. ni ko boroom xam-xam yi waxee. Mm-hmm. ña laxas xas jàngi ci moom bari woon nañu. waaye am na ci ñoo xam ni ba tey ñëpp siiw nañu ndax ñoom ñëpp ay kàngam lañu ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañu. comme ni ñu ko waxee woon sànq ci jataay yi weesu ne Xaadi Iyaad lim na ci junni ak lu teg loo xam ni laxas nañu jàng si ci moom doon ay taalibeem jàngee ci moom mu watta ba mu jeex mm-hmm. am ñu ca tudd am ñu mu ca tuddul waaye dafa am ñoo xam ne ñoo ca gënoon a siiw bokkoon na ci ñoom taalibeem biñ naan Abdourahman ibnul Qaasim moom Misra la jóge woon taalibeem imaam Malik la bu takkook moom lu toll ci ñaar fukki am na keneen kuñ daan wax Abdullah ibnu Wahab taalibeem imaam Malik la eh, boo xam ni takkoon ak moom eh, lu jege ñeen fukki at mm-hmm. moom rek lañ wax ni moo masaa bokk ci taalibey Malick moo moo masaa nekk taalibe Malick boo xam ni daan nañu laaj Malick masala mu gàg ca gàggantikoo ci moom mooy na ko laaj moom rek la mayoon ci daaraam nit laaj ko lu mu lu mu teewluwul kooku fàttali ko ko kooku mooy Abdullah ibn nekk naa moom lu jege ñeen fukki at am na beneen taalibe it bu ñu daan wax Ashhab moom it taalibe Malick la bu taxoog moom lool def ak moom it lu jege ñaar fukki at amoon na beneen moom it waa Misra la ñu fi tudd ñii ñëpp waa Misra lañu waa Égypte. am na ci keneen ku ñu daan wax euh, Ibnu Abdil Hakam moom it taalibe Malick la taxoon ak Malick ab diir imaam Shafii ba muy ñëw di jàng si ci Malick moom la la xaritooloon lool ba moom mooy sababu imaam Shafii gàddaaya Iraq ñëw dëkk Misra dëkk moom ci genn kër ba faatoo faatoo faatu ba ñoom ñaar lañu denc ci benn barab. allahu akbar moom Ibnu Abdil Hakam moomu. moom it taalibe Malik la imaam yi nga xam ni boromub ngir la junjoon nañ ko ci jataay yi weesu moom it taalibe imaam Malik la euh, laxas na ñëw fekk si Malik Malik dalal ko e danañ ñëw ci loola incha allah ci saa yi ñuy wax ci Shafii yi mm-hmm. moom it taalibe imaam Malik la amoon na taalibeem bu ñu daan wax tamit euh, Muhammad ibnu Maslamat al bi moom Iraq la jóge woon gàddaay ñëw fekk si Malik jànge ci moom mbokk ñi gën a siiw ci ñi solom watta ci Malik ibnu Anas amoon na beneen taalibe bu ñu daan wax eh, yaxya bnu yaxya an yi bokkul ak yaxya nu yaxya al laysi bi solo mu watta mooy mm-hmm. mii solo na mu watta waaye moom waa waa naysaabuur la woon naysaabuur tey boori Iran la moom fa la jóge woon gàddaay laxas ci ñëw jàng si ci Maalik amoon na taalibe it bu ñu daan wax eh, Abdullah ibnu Yuusufu Tinnisi moom xayrawaan la jóge woon Abdullah ibnu Yuusuf doonoon taalibeb maalik bu taxook moom lool bokk it ci sëriñ yi al imam Buxaari e, amoon na ay ta amoon na taalibe it bu ñu daan wax Yaxya ibnu Yaxya al-Laysi moom it Andalus la jóge woon mooy Espagne laxas dem jàngi ci Malik am na ku ñu daan wax alqaadi Shabtun moom it Andalus la jóge woon laxas dem jàngi e, ca imam Malik amoon na ab taalibe it bu ñu daan wax e, Abdul Malik ibnul Majishun moom it doonoon ku siiw ci taalibey Malikiya eh, doon borom xam-xam bu màgg moom it ci madhab bi eh, ba waxam dëgg-dëgg yenn saa yi ñu teg waxi Malik teg waxam. amoon na beneen taalibe bu ñu daan wax Asbagh Ibnul Faraj moom it ci taalibeem yi taxawoon ak moom la ala kulli xaal taalibeem yi bari nañu woon. Eh, taalibe yi kenn ku ne ci ñoom. ca fa nga fare féete fa doonoon nga fa ab njiit boo xam ni njiit bu kenn dul contesté la. njiit boo xam ni ñëpp la nangul. gàddu nag la nga xam ni mooy njàngaleem imam Malik tasaare ko ci àdduna bi tasaare ko ci gox yi ba madhab bi mujje siiw tasaaroo fépp rek. ndax euh, Malik taalibeem yooyu am na ci ñoo xamante ne bi ber na leen ñuy jàngale ci nekkam ba noppi ñu ne ci yeneen i barab. waaw am na ñoo xam ni jot. Malik dund ñu yor daara euh, ñu daara mooy ñu jot ñu teel a ñibbi ndax ñoom ñëpp nekkuñ ca daara ja ba Malik jóge fa. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne dañu teel a ñibbi. Mm-hmm. dellu. fa ñu dëkkoon sos fab daara di fa jàngale loolu amoon na ca mm-hmm. am na ñoo xam ni eh, madina la ñu nekkoon mm-hmm. ñooña nag kenn musta sos daara ci kanamu Malick mm-hmm. ba bi Malick di eh, nekkee ci eh, màggat ba ñu laaj ko laaj nañ ko ay yoon kan nga yaakaar ni boo fi jógee moo la mën a wuutu ci daara ji mu joxoñ leen ne leen ibnu kinaana ibnu kinaana la la wax ni moo leen di wu moo leen di moo leen eh, ibnu naafi ibnu naafi ibnu naafi as-saaix mm-hmm. mu ne bu fi jógee na ko ibnu naafi wuutu mm-hmm. donte ibnu naafi ca ña gënoon doon xale ca daara ja la bokkoon ñu ko maga nga fa ko magoon mu ne ko na ko wuutu ca daara ja mm-hmm. ibnu naafi teewul nag ba fa Malick jógee ibnu naafi wuutuwu ko dañ xool ka fa gën a yàgg ak Malick nekk naa ak Malick ñeent fukki at ku ñaan ibnu kinaana kooku moo ko mujjee wuutu ca daara ja waaye yàggul ibnu kinaana faatu ibnu Naafi doog a ñëw wuutu ibnu Kinaana ca daara ja kon daaray Malick ca Madina amut taalibeem bu beraloon boppam jataay beraloon boppam daara ca Madina di fa jàngale ndax Malick nag koo xam ni raaf la raafal nga say say say say daaray sëriñ mhm. eh, defe naa sab ndong nga xanaa ndong bu am fit lool mooy sanc daara ci sa wetu daara mhm. moo tax moom kenn sañtut woon ca wetam mhm. lu dul nag ba mu fa jógee eh, kamu mu wuutaloon keneen moo fa toog njàngale bi daara yi commencé tasaaroo doon ay daaray taalibe kon ci gàttal ki moo doonoon li moo doonoon Malick ci ay sëriñam ak Malick ci ay ndongaam eh, kon fii la ñu eh, jataay bi tënk eh, ñu jox leen dig daje ci yeneen dat jataay incha allah ci seen émission xawla al madahib al arbaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad gën nañoo santaat bu baax a baax gën a bégaat waaye itam gën a ubbeekuwaat ci eh, imam Malik eh, ñi ngi lay sant bu baax di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yal na la yàlla bàyyi ak sam xel eh, te dëgëral sa sa sa liggéey te barkeel ko ci daraje lislaam bokk ñi ngi sant ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ñëpp ci jataay yi incha allahu rabbi xam naa ne danañ teg sunu baaraam foofu ci imam Malik duggaat nag ci yeneen imaam yi incha allahu rabbi ci yeneen jataay yi nga xam ne ñoo ne ci suñ kanam Eh, ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di bala àq ñëpp di leen bala àq xam naa nag incha allah Malick danañ ci dellusiwaat ci ay atteem ak ñi eh, nga xamante ne bii ndax Malick ku ne xame ne eh, bari na loo xamante ne bii ci attey Malick lañ ko sukkandiku dana ñëw ci attey Malick yooyu incha allahu rabbi ci yeneen tomb waaye nag jataay fii ci Malick fi lañ koy tëj delluwaat ci yeneen imam yi su ko dellusiwaat ci imam bi mag jooju di imam Malick ñi ngi leen sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci beneen jataay wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Amazing